اللهم صل على سيدنا محمد الفرح ما أغلق قتل وسوى على صراط يقين والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرح ما أغلق قتل وسوى على صراط يقين والهادي عن سؤالك المستحيم هذه عقبتي ومن اللهم صل على سيدنا محمد الفرح والقلب لما سوى على القيام والهادي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 العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله الله الله الله كل أمته وارحم بأمته وصلى على ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته وصلى على ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته وصلى على ربي الله اغفر لأمته وارحم ربي أمتي والصلاة والقرآن ربي الله الحمد لله ذي تزيي الله أكبر لله يا الله يا الله يا الله صل صلاة من على سلم على المصطفى يا الله يا الله ومن عادنا صلوات القصد الخدمة للمرء محبتي لله الله صل صلاة وتسليما على أمر من نوره كل حال أكوان يا الله لو لم يروا في فضاء الكون جرعته تمحى البرية في ذا الماء يا الله نور من النور حول الضوء كمن تفير فيدا على الأخلاق فبلغوا وأخذت به الأنوار خطيبة الحديقة خطيب الخلق الله نور المبين أتى نور المبين شجري بعد جميع ربي الله في البرية ملولة بي كرم من نوري يا الله يا الله فقيح الكون حي سديد الأنوار إفادة الله نور الله الله صلي عليه صلاة الموت كمال للكمال يا الله يا الله صلي عليه صلاة صلاة صلي مرحبا عندك ملاته حبك يا الله صلي عليه صلاة ربي كبيرة حتى إخافتي بالله الله اغفر لأمتي وارحمني أمتي وصلى واجبرها يا ربي الله الله رحمن يا رحيم يا

سويا ويا سويا وطاب الله عليم يا حامد القاسد يا حكم القيس يا حامد رافع يا الله مسلم يا علم يا سميع يا عزيز يا الا الله ربي مقدم ماضي يا موكر يا أدي يا الله يا خبير يا الله أهلا بطيب يا والد أدي يا عبد الله يا الله يا الله حليم يا حق يا وكيل مجيد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله أهلا شكور يا بحري يا مجيب ربي ويا مجيب يا مصيد العليم يا الله حبيب المصيب المعيد المبدي الصمد المميت رؤوف البر يا الله يا متعالي وخبر خبر مالي شهيد بريء هادي الله يا نور منتسم الخير مقتدر مجيب يا الله يا نور يا الله يا اول الاخر الكريم الظهير يا رقيب متين يا حسيب يا الله وصيت يا الله يا جليل ربي يا عزيز يا الله يا حكيم يا الله هو عفو يا وارث الباقي رسيد يا سكون يا ربنا يا الله يا بسر هذه الأعصاب سلي النوى سيدي الحامد المحمود الله الفاتح المغلق العالم ما سبى المسلم كالذي حي العلي الله الله سبحان العالي وقدري انا بداره انك العليم تبارك رب تبارك رب جل رب تعالى نور ربي الله وإنني ربي يا الله سفينة ترجع إلى رحمتك وسط حبيبتك والغير إلى الله حاجة ليس يرفعها سواك يا ربنا يلا يلا ربع المقبول بما قد كان يريد رب العباد عليه رضي الله ولو في Muslims صلاة مع تسليم يا الله صلي وسلم على بسبيبك من تقوى يا الله يا رب يا الله يصيبن إلهي يوم رؤيته فلا يصيبن من رؤيتك يا الله من يكن ينهه عن دنيانا وجهلا هذا الكثير أتى لتبرير كلنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يا خير الله وصلي صلاة بها ربي تعللنا بعوده ربنا يا الله يا الله صل صلاة وتسليما زائدا على الحبيب وآل الله صل على القدر ما الأجيز زيارتي ربي يا رحمن يا الله الإلهي ربي قصيدة وسيلة للغنى يا الله يا الله أعوذ حب الغنى إذا رأيت فيها من الله أيوة وأدري أيوة، أيوة. بالحنى ربي مصابي على رأيك يا رحمن يا الله يعني شكرا أوليتني لعما من الله سجعه يا رحمن يا الله

واغفر لنا ولموت بالليل ونصبر بالدي أتيت بأرض الدنيا الله واغفر لنا ولمن من بيننا نصبر بالدي أتيت بأرض الدنيا الله صلي على

أمتي وارحمني أمتي واسترها والبر في الله اغفر لأمتي وارحم لأمتي واسترها والبر ربي الله فاتح صلاة الفجر يدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله جيب barke ay si bi mbirum jàmm ñaan yàlla yàlla yàlla def ko mu doon faju aju ak naka la yàlla jàmm yàlla gën a jafe yàlla yàlla yombal ko rek bay kàddu la yomb yàlla yàlla jafe ko yàlla dëgg dëgg jullit léegi suñu xabb ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam la fi taalibi Cheikh Chérif إله إلا الله واستغفر الافعال من شر كل ما يي عالم يا عالم كل خبرتي واستغفر الافعال من شر كل ما به عالم يا عالم كل خطأتي كل خطأتي فإنك أنت العالم العيب كله سألتك أنني يا الهدي أكسب باللغة الروائية Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

يا بارئ الأنام ترى الذي أنكر ما أتى وفاض من صدق ما رأيه ما أكرم الحبيب يا حبيب صل على الحبيب يا حبيب سيسي الحاج مالك لنا لا توسر الأرض ربي علينا خلا ولا تولنا بخير أبدا قصة بايد أم رحمن ما خاب من دعاك الا لم يكن يا يا شجرة المستكبرين أدعوك يا رب الورى رب الورى تسب بارس الإنفاق كرسي يا رب أن تكسف عنا الدرر سعيد من أولئك السعادة يا ويل بنفسنا العبادة موردين بجاية الصلاة الحبيب صل عليه ربنا في كل حين حناعة يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله نجنا من زين أطائي رب من زمانة الأعطاء طيرنا من نوز العام وصبعت الغيبة المنام لا إله إلا فرجاه يسر ولا تعسر يا مفرجاه يا مالك يسر ولا تعسر يا مفرجاه جعلنا لكل ذي مخرجا

إلى غافر رحيما تفريده الهموم فهو الهموم أدعو إلى الغافر رحيما تفريده الهموم والغموم لا إله إلا وجه المنام نهدي لنا من دنس الخرام وسبعة موجبة على كل أنام دنس الخرام الواجب

You

Oh, من كنوز الغرابيب وحاجبوا ولمة مصير حاجب والغير الغرابي فجل قلبة الملائم قلبة قلبة الملائم لا إله قلبة قلبة الملائم

Batilu kumuni batilu mala, batilu mala de. Kumuni batilu kumuni batilu mala, batilu mala. Kumuni batilu kumuni batilu mala, batilu mala.

وترى هنالك طيبة مجلوة وبرأسها يدلي ولد به شمس النبوة عشرة ترى في الوجود أبوها فهو شريعة حرما عما بسيط حضارتنا ولم به ذات النبي محمد Yeah. ma soxla leen tamit loxo ca kaw waaye yonent bi yar na ko de وجدت وجهي يا كريم آه. إليك سيد الحبيب نرجى بدائك العظيم تفريج تكون بمجيد صلى الله عليه وسلم والدين خن بدا غريب بدءا كما روى الحبيب بغربة سوف يقوم بأمره فاعتصمي لويك إذا يقنني يمك الجلال صلى الله عليه وسلم شاد باريس مالك يا مالك تتاسسي مركب أكون أمين وأنت كل خدمتي وكفر كل نعمة مستعار من حال خلبية منسئنا ولا ترى من يرحم فيه أن أو يكرهه جعل ومن يخترقه لا يا رب المؤمنين والمؤمنات اجمعين بحول خير العالم بجاهه كله وبدع وخيل كباح كتاب والسور وتغافل عن كل ما يبدع لي من أمر كل غاشم وبدع وخيل والزور وتغافلين عن كل ما يدراني من كل ما أشمي محمد محمد أحمد بلغنا محمد بلغنا محمد محمد بلغنا محمد محمد محمد محمد والحسناء والبرقاء ويا مريم خير خلق الله والبرقاء ويا مريم خير خلق الله والبرقاء I'm yerlere yapmalı cezayı Ki yerlere yapmalı cezayı Birisiyle yapmalı cezayı Kimin akıllı yerlere yapmalı cezayı Kimin akıllı yapmalı cezayı Kimin akıllı yapmalı cezayı Kimin akıllı yapmalı cezayı Desire,

ذمتنا قدوتنا يوم الجزاء زرنا مظلم بالوفاء والمرحم صلى الله عليه وسلم أراه رب العرش ما يرضاه

Sëriñ Babacar Si Malick nee na radiyallahu taala anhu wa nabi amin mawna wugal basir al mubassir al nazir dëgg la ku soppe nit am ci kaw wa ta'ir muta'awwid wa durun wa la ilaha

you, I want. خبير خير كل وصف خبير ادخال اضعال يا امام صلى الله عليه وسلم

Let's go!

Come on, say. محيط يسأل محيط الموضوع يقبل وراء يا الخير يا الخير أجوار حمر معليل الواقع لا تقر موجود سخيم القرآن بل سلمني الحر كلها لرسول الله فردا يا رحمن لا تنصر الأبطال بالحق أهل ينظر وخبر لا يخبر معليل الواقع

وخطب ورع ومحدين وخيا صبر وزهد ساق القرآن كبير الغرمان يحرم الجبال وليل المبيات وصوصيه ومن خسر إلى الأرض لو الروح والمضمين وخطب ورع ومحدين وخيا صبر وزهد ساق القرآن تنزل النيل بغداد أنزل الرحمن قال يا أيها الفقر يا حق ورحم معدل وضايا صبر وسلم ساق القرآن خصمته أو في وسعده وسوينا وترعتك عثمان في الإسلام ذي وسعداد وسبيل أكوان العدلك عثمان في الإسلام كتبين فلان وعظم نقض عرف وزعد وسبيل أكوان العدلك عثمان يا رب في وسعد وسمي وجاءت عثمان في الاسلام ولدبلن الخابر الروح شعير معه بين دعوة الله عما وسوف أخذ إلى الكرم وآمين سعيد بوبيئة عبد الله عمار سوف أخذ كالكبير الرمير وآمين وشهيد ربيئة عبد الله عمار ورقود يا سعيد الله

رسول الله عمار صلى الله عليه وآله وزعيم الله بيننا عبد الله عمار سبق المجد بلند له وكان دعوته يا سر الرسالة سبيل يا عندنا الغرب وعدي سعيد يا يعبد الله عمار سبق إلى الجنة وكان دعوته سرا ثلاث سنين يعلو عندنا الأرحام الغير وعبيد يسير معه بيدته

سعيد معه بينة عبد الله عمار سبح للعلم لم يراجل لم يزل يقوم واسيب الظالم من الله ورب العالمين أترجون من الله أمرا خيرا ولدم لني الجميل الله yër na ku baax borom bu na nun góor yëpp la na ku baax fekkoon na bay ba jëm jëm bilaay su yër na Ustaz Sayyid Tom. Mudirir Nil Mahkamah Isa'in Babakar. Nanam Dallah itu Rokhim Kaya Semaya. Sedih kemari mau sampai. Gedong mau berloda. Gedong hasil lori. Musa, musa, musa. yaa tàntal Serigne Babacar. Allahu akbar. yal na yàlla la ko fayal ma. daf leen nii si Moussa waay. ku sopp Moussa defal ñu. waay daf leen nii si Moussa ñaari ma. moom Moussa. bilaay soo wéeru na ku baax. moom Moussa waay. mais ngóor su baaxee soxna bu baax. góor su waxee soxna ma baax Adja moo jàppale Moussa mi ba mu mën ko tantal Serigne Babacar Sy bilaay sourire na ku baax mu sàmpee li nga xam ne mooy waaj Mass Mbaye ma nii jóge ba Tëngéej Adama ñëw waa Tëngéej yëpp dañoo war a ñëw waaye gàncax kon bu ko defee ñu jox suñu kilifa njiiri oustaz mu dugg ci waxtaan yal na yàlla fay la imaam la ratib la mu xaddam la heure mu ko faroon fekk ca ma def leen nii mooy daw safa daw marwa di wax labbayk laahumma labbayk am na loolu danaan yóbbu ay jiitu mbooloo mi topp ci ginnaaw ay julli julli oustaz oustaz na leen yàlla ne yonent bi ne fii mooy fii fii mooy fii ndax màkk ku fay dem da ko war a xam yàlla yàlla barkeel bu dawee ne ñu am bii rusam sama am Thank you.

Sorry. That's how to you Oh, my God. sëñ Babacar ku ko màggal am na sa kaw. ku mel ni màggal sëñ Babacar ku ko màggal am na sa kaw. nit boobu kuréel gu ku bay ba kenn fenn ko. kon yéen a dawal bu kalaaw yaay dugg di waa wàllu mbay. kon yéen a dawal bu kalaaw yaay dugg di waa wàllu mbay. او ها راتو نبي تا دل ودھو دے

Serigne Babacar moo ni toll ndax waroon nañoo jël rajo bi bu yàgg waaye li tax ñu dugg ci biir ba ñu way Serigne Babacar sax xamuñu ko day wane ni rek moom mooy borom bis bi barakallahu ahsantu ko akmaltu ko ataaka allahu amrakum bi jaahi al-alamin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla wóor na sa yéene bi jaay rasulullah lii laa waxoon ca jëlbeen ne woon naa ku bàyyi sa soxla teewle incha allah di nga bég ci yéen ci waaye di nga bég ci Serigne Babacar Sy may doon Abou Sarr yal na yàlla baal kenn dañuy jox imam imam jéeg incha allah mu daal di def ñaan di dugg ci programme bi. nangul dafay si yiw wax yiw yokk القرآن الكريم بسم الله mbokk yi dañuy waaj a wax ñu

tabaarakallah yal na yàlla nangu ñaan yi yónni ca xadara ba waaye di ko yónni ci rawdu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane koy foofu tan ku miin Serigne Abdoul Aziz Al Amin miin nga jëmm ji oustaz muy Serigne Abdou ku wóolu woon amul fu mu ko yebalul ci adduna te bu demee ndam la fay indi te Serigne Abdou ku ko xam daaw nga xam ne daawul yebal tuuti ko tabaarakallah oustaz lay xam nañ ne amoo jot ren waroon nga dem Makka waaye pus bi jaral na la ko lu ne ngir bàyyi Moussa ni mu fonk Serigne Babacar Sy tey jii bi ma xëyee maa nga jubal teewoon ca rawdu Serigne Baba Sy fa la nekkoon ñaan ci bés bi dafa am na sa soppe bu ñu xal Alhaji Moussa Sam ku la bëgg na Serigne Baba Sy ku am cofeel la ci yow tey jii moo taxoon tudd ko tabarakallah loolu nag maa ngi wax ca rawdu Serigne Babacar tax xam ngeen nit yàlla du dee nit yàlla du dee Serigne ak soxna Adja Mbaye tabarakallahu ak soxna Adja Mbaye ma ne leen seen bés bi ngeen tudde Serigne Babacar Sy ma nga toll ca Tiwaawan tey jii ma ne naa dem Tiwaawan xoolal rek te bés bi Moussa Boy Moussa yàgg na ko programme lu mu yàgg yéene la yéene ko Serigne Babacar Sy kon bés bi Serigne Babacar Sy te oustaz bu duggee yow ci waxtaan wi di ngeen xam ne bës bi Serigne ba Sy ñu sant waykat yi bu baax waaye Moussa nee na mu leen di bu baax ndax yéene ngeen waaye yàggal ngeen wanu ay tànt mais ni ngeen wooyee ci tànt bi Sëriñ Babacar Sy mosu leen ko way bañ ba ah fa tabarakallahu ak ñu ma ko àndal ba Ousmane Kan fa tabarakallahu sëñ Abdoul Karim Baye Am sëñ euh, sëñ Aziz alaaji Assane Fall alaaji Ousmane Mbaye fa tabarakallahu ak ah, sëñ Daouda Diop yéen fa tabarakallahu Sëriñ Moussa mu ngi leen di sant dafa fort waaye nag ji nag dam ci bëgg ndax bés bi boo ko taxawalee tudde ko Serigne Babacar Sy dafa am ñu ko jàppale si bés bi képp ku bëgg Serigne Babacar Sy rek ñëw na ànd ak moom ci bés bi indi teraangam waaye yéene ko bés bi wan ñooñu nag mënoo ñàkk balaa oustaz di jël mu sant leen gërëm leen waaye ñaanal leen yàlla ci barke Serigne Babacar Sy ku mu ci jiitu nag mooy famille mooy famille Makhtar Binta Mbaye nee nañ nañ waaye rafet nañ ñu ñu ndax Adja Mbaye mi dafa jàppale Serigne Moussa mi tabarakallah ëpp na 32 ans lu mu sumba rek mooy nekk ci kanam mooy nekk ci ginnaaw moo seen xalifa bi alaaji Pam Mbay ak sëram yëpp sëñ Moussa nee na amul seen fay yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen ci barke sëñ Babacar Si radiyallahu anhu nee si topp mooy muy Serigne Abdoul Aziz ñëpp xam nañ ko bu Sidi Ahmad bu Serigne Babacar Si moom la sëñ Matar léegi doon waxtaane kooku ku ko xam xam ne moom turandoom benn la sëñ Abdoul Aziz Al Amin bu génnee ci télé bi moom lay doxe moom lay waxe waaye ku ko xam xam ne surtout sëriñ Babacar Sy ay caaxaan du ci dox ndax surtout sëriñ Babacar Sy la moom nag tey jii bés bi moom lañ ko jagleen fa tabarakallahu xam ngeen ne Aliou Moussa Samb ñëpp xam nañ ne ci famille bi la bokk waaye mu ngi koy gërëm di ko baral cant waaye imam Gaye mii moom moo ko fi toogal nee na mu ngi lay sant imam Gaye Euh, ndaw lu ne day yore daraja yi ku ko yónni waaye gis nañ ne sa toogaay bi toogaay imaam la rafet na loolu yàlla yàlla fay du nuy nag euh, gàmmukat bi di sëñ ma Diop dama naa ne moom mi gàmmukat bu mag la fa tabaarakallaaw di ndijaayam waaye fa tabaarakallaaw di ko sant ndax moom mi mooy seen porte parole famille démb rek bés bi daf ko wàccal kaamil yéene ko sëriñ Babacar Si ñaan yàlla bés bi daf ci ndam sëñ Adama yàlla yàlla fay la gërëm nag alaaji Masamba Mbay bii bu baax bi bu sene rek bu baax yaayam ak papam ñoo bokk ndey ak baay nee na am am na ñeneen ñu waroon ñëw waaye dafa am journée yoo xam ne dañ ko jagleel ñaanu maam Jibril Samb dafa yëmmoo ci tëndik moo tax moom mi bu teewee alaaji Maas teewal na mbokk yëpp ndax moom mi foo ko gis ci diine la yëngu foo ko gis daara foo ko gis jàkka tabaarakallaa bay mas yal na yàlla sàmm la yal na yàlla may la gudd fan di gërëm nag famille Baye Gana Ndoye yëpp xam ne Papa Ndoye bi bu toogee famille bi yëpp la fi teewal ñoom Ndey Binta Ndoye ñoom Jaaro Ndoye ñoom ñëpp bu leen limee famille bi dañuy guddal waaye ñoom ñëpp Serigne Moussa nee na mu ngi leen gërëm nee na mu ngi ñaanal Baye Gana Ndoye yal na yàlla yeesal yërmande nee nañ ñu gërëm sunu mag ju tedd ci bu baax bi Serigne Ousmane Fall di jëkkër ma jigéen fa tabaarkalla jaay nee na ko fekk fii ci deux heures bagage yi nekk ci ginnaaw yëpp moo ko participé ci bi moo ko rangé ci bés bi nee di gërëm aussi nee na xaritam yi ne Istanbul yëpp mu ngi leen di gërëm Ablaye Diallo Massar Seck Cheikh Aw ñoom yóbbaale ne xaritam bi ne Istanbul yëpp yóbbaale nañ dana mu ngi profité occasion di lim liste bi rek ñu jàpp si gis bi guddi na Mamadou Samb commandant Samb ne na mu ngi koy gërëm mu ngi nekk ci port de pêche Assane Diouf Diop ñëpp xam nañ ko Serigne ne na mu ngi koy gërëm muy douanier nekk boor di frère am waaye di xaritam ñëpp xam nañ ne Babacar Diouf colonel mu ngi koy gërëm di gërëm aussi Momar Mbaye nee na Momar Mbaye tonton tonton Mamadou Mbaye mi toog mooy buy jur mu góor muy xaritam waaye du wëllëre même temps di gorom nee na bés bii bésu Serigne Babacar Sy bii si jëkk dugal loxo mu ngi ñu toog nee na wuy juróom moo nekkoon imam ci jàkk ji mbokk bay ganandooy mu ngi ñaan Ablaye Jara Diop maître tailleur ci jëppal booy booy na xam nga ne booy booy def ni jàpp na ci bés bi di rakku mbargaan di rakku oustaz Mouhamadou Moustapha Gueye dafa waroon dem mag mu programme bés bi mu fomm mag gi am ñu mu jox yoon bi ñu demal ko yoon bi doxal ko mission bi loolu kenn mënu ko fay kenn mënu fay loolu ndax xañ mbargaan jóg ak waa bi ñuy tagg ñun yëpp Serigne Moussa nee na xolam sedd na lool mu ngi wax ni ci kanamu mbokk yëpp nee na soxna Adja Mbaye Serigne Moussa nee na gërëm na la bu baax ci kanamu mbokk yëpp nee na Adja Mbaye Serigne Moussa nee na gërëm na la ci kanamu mbokk yëpp sant na la bu wér a wér su ma amee kenn xamu ko su ma ñàkkee kenn xamu sagal na ma lool yàlla yàlla sagal la waaye Baye Moussa ci barke Serigne Baba Baye Moussa tabaarakallahu kàddu yooyu nga mujjee wax ñun xamoon nañu foofu ngay mujjee tabaarakallahu ndax nag jabaru jàmbur boo koy way na jëkkër ja dëbbe tabaarakallahu te xaaj Moussa dëbbe na ba noppi xanaa ñu aw ko rek tabaarakallahu waaye soxna Adja wax na ni peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya tabaarakallahu te yow yaa ko jàppale yaa ko sagal tabaarakallahu yaa ko bëgg it ba mu jeex te tey ah Moussa mooy bi de te nag Moussa kàbbar bu leen ko toppandoogum nag ba li may wax mot bas ba noppi incha allah waaye li may tëjjel seriñ Serigne dafa waxoon daf leen da dañu ko wër di ko way ku nekk naan mbayaanu doy mbayaanu doy sëñ Babacar lu nekk ñu wax ko ko mu ne waa way ngeen seen sëriñ ba noppi léegi waye leen ma sama sëriñ ma woyal ko sëriñam incha allahu jox ustaas mu dugg ci sumarda an شيخنا التجان قدوتنا شيخ المشارق يا طوبى لنا الضمر انا صبي شيخنا التجاني سري بابا كرسنا نمام الكشاف يا شيخنا يا أحمد يا سيدنا يا أحمد يا شيخ يا waaye fi leen ñu màggal borom tariqa bi loxo ca kaw. xurbal wujudi wa nicmatal akwaani ana soppay cheikhuna tijaani sëriñ Babacar si nee li ma wér ci cheikh yaa raaxilan mutasaabiqa rukbaani nahwa aljinaani روحي وريحاني شيخنا شيخ عبد البيان لأهلي يا متصرف الشيخ بالوافدين وجملة السكان الشيخ التيجاني سرين بابا كرسنان إمام الشيخ لا تحصرن توصلا وتضرعا وترفعا بالعين والتيجان شيخ التيجاني الشيخ التيجاني سلمان يقع زيادة بتغرب كضوء الغرامة فائع الأوطان الشيخ نتيجاني سري بابا قرشنا لوح بدت تهي ولا بتعيين من كل ناظر والعالي انا وفي قلبك الشيخنا تيجاني شجري بابا كرسنانا شيخنا تيجاني الا انه ختم الولايه عين عاشق تيجان فرباه من رباه رب البريه على انه الشيخ مريد بربه شيخ تجار رفيق صفا صفا صفي بكم يدي فبحر سياقه شيخ ختم وجهه ايام منقذا وفيك لبك شيخنا تيجاني عيا منقذا إني غريق وفاضع فإن تنضحي أو يكاد يثيبني جناب ولي الله وهو المراجع جناب ولي الله منقذ مهجتي بلا معلتي يا صاعي ها أنا طامع شيخنا تيجاني مكارم الأخلاق وتثريب نسبة لأفتاف البحر الفار وهي اللوامع ألف للشتجان ذكاء وفاء بل سقاء أناته وحلم وصبر إنه المتوانع وعفو وإيثار خفاف صيانة وسير الحنان واحتمال يطافع أركب dafa guddi rek moo tax teg sëriñ باسمك اللهم نسبح ونستعينك ونسألك ضارعين خاشعين إلهاما وعونا وهدى نكون أهلا للحديث والنجوى عن المستوى المختار صاحب الرسالة الخالدة القاتمة وصلى الله وسلم على سيد السادات بني الجنس البشري سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن الزمزم الفياض الرباني شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن كافة خلفائه ومقدميه وخاصته وخاصة خاصته إلى يوم الجزاء وبعد أئمة الملة المحمدية وأساتذتها العظام إخوتنا وأخواتنا اسمحوا لي أن أزجي إلى مسامعكم السامية تحية مودة واستعلان ولاء وتعلق وتقدير وصلة عن نفسي والنيابة عن قومي وإذا قلت قومي فإنما أشير إلى دائرة أوسع من الدوائر المألوفة عندنا فقومي بصفة عامة هم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وقومي بصفة خاصة هم كل من يذكر صلاة الفاتح لما أغلق ويوقر حضارات أهل الله ويحترمها غاية الاحترام تحية أسديها فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإنه لمن الصعب أن أتحدث في حياة هيكل رحماني وقطب شامخ المراتب من حياته بحر لا ساحل له وكنز لا يفنى بل من أصعب الأمور أن أكتب في حياة عارف بالله تعالى كخليفة رقين جاي آي بوي ميشيل سامبنا لمن طلب في نفسه الزكية من أنوار قدسية وتجليات إلهية يعجز القلم من أن يصفه على الوجه الذي دار عليه تحت النظر النظار ولولا ما كنت أتربى تحت ظل حضرته القدسية أقتبس من نور فتواه لكان جميع ما أقوله فيه هباء منصورا ولكان جميع ما أقوله فيه عبدة للقائل جزا الله عنا والدينا ومشائخنا وأساتذتنا ومن سبقنا بالإيمان إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير بقي بس بس yi góor ak jigéen mag ak ndaw ilimaan yeeg maamoom yi président yi daayira muqaddam gannaaw bi sante yàlla mi yeyoo xeeti cant yépp di julli di sëlmal ci sangu ku yàlla bind mi seydina muhammad waaye di ñaanal ngërëm maulana abil abbas seydi ahmad tijani متاخ نجد في صلاة الفاتحة جوهرة الكمال حق اليافوتة الحقائق بالتعريب بحقيقة سيد الخلائق حريانين نوندي يكتي كدو نيو كدو زيار كدو نمكو جمتي كن نكو نكتين تفانغا di ci jiital mboolem aima yi ci bi yépp te sunu mbokk mu tedd mi teewal leen fi di nuyu délégué de quartier yi fi nekk ak kilifa yu mag yu sell yi kaar yal yàlla guddal seen fan te dolli seen wér ak seen sutura tabaarakallahu di beral nuyoo soxna yu tedd yële nga xam ne ñoom la borom bis bi seddoo sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala daan wax ne góor ñi dañ ñoom a seetloo waaye man nag jigéen ñi laa seetloo waaye mu mel ni dañ ko laaj lu tax mu ne duñu xuloo ci ilimaan bu ñëw ma leen àtt te duñu ma sonal ci laaj yi ijaaza te daayira boo dem nag jigéen ñaaman góor ñi ñoo ci attan lu kenn attun waaw waaw defe naa ne woykat yi sànq ba tey daal soxna yi laa ngi ñuy bàggante ji taabal yi ah xam naa gars yi ñëw ay benn benn na waaye daal soxna yi daal wax yàlla seen ñëw ci taabal yi moom ko na lool yàlla bu ñu ko tëlee yàlla bu ñu ko ñàkk waaye góor ñi daal leen yàlla may seen poche fees ba ñu mën a joxe di beral nuyoo yi njabootu alxaaji Gana Ndoye rahimahullahu wa radiyallahu anhu

te kii ñu ko sante yi kenn la ci nun ci njaboot yi fa tabarakallah ah te comme su ma demul dina am ñoo ma fa nekkal ah ma ñëw nekkal leen ci man itam tabarakallah wéttalinte rek ak yéen sëñ Babacar si nag daan na wax ne man añ laa bu jëkk laa sotti daan na wax ne man añ laa bu jëkk laa te yar ca dëggu ga ca yàlla ya ca wilaaya ca xutbaan ya sëñ Babacar si kenn musula ñëw ci canapem boobu ci saal bi fekk ka mu toog wéeru booru ndijoor mbaa booru càmmoñ wala mu wéer gannaaw waaw nii la daan tooge jël avant bras yi tekk ci kaw lu fam yi bu fa kenn newul mu jël baaraamam bi nga nga di sàkkar yàlla bi ndax yoonam newul bañ tagg wu na nag ñu tagg ko ko toog waaye benn tagg mosu ko yëngal xam lépp lu ñu ko tagge fekk na mu yëg ci boppam lu ëpp lañ ko tagge mu tax benn tagg mosu ko waaw xanaa benn ba alxaji Abdul Aziz Dabbaax toogee fii ci Dakar ba fekk kat ci waawan ba mu demee waxul sëriñ Babacar si soxla si ka tax jóg waaye bi mu ñëwee nuyoo nit yàlla day xam loo ko dul wax di gis loo ko dul wan ma doon nekku ñoo nëbb boo nee ñooy sa kilifa boo jubee dañ ko xam boo jubul dañ ko xam boo waxee dëgg dañ koy xam boo waxul dëgg dañ koy xam parce que am na ku leen di dee loolu yëpp yéen xaaj Abdul Aziz ndeysaan radiyallahu anhu ak respect bu jox Sëriñ Babacar Si ñëw nuyoo yëglu ñu ne bismillah mu ñëw nuyoo Sëriñ Babacar Si jàmm sant ndeysaan ca yar ba toog Sëriñ Babacar Si nag ndax egg nga si njaboot ga seet leen moo ne ko ah fii laa jëkk a jaar mu ne ko ah kon nag eggal ci njaboot yi seet leen comme gëñ nga fa nga nemmeekul ko ak ñoom booy dem jaar te fekk booba xaalis bu mu fayee courant ndox téléphone yooyu moo di woon soxlaan ay waxul dara sëñ Ba mu ne ba ca ngoon nga nag yéen doom njaboot di waxtaan ak ñoom ba ca ngoon mu ñëw na di tàggu si sëñ Babacar di ñaanlu la ba tey waxul soxla bi sëñ Babacar ko si ñaanalee ba noppi la yëkkati deram génn enveloppe bu toll ni ñay ne ko ah kii day xanaa dina baax ci soxla yi yu yóbbaale rajo bi nee na ci rëddu Tiwaawan ba bi ma koy génne ñi ma ma koon enveloppe nee na ba ma génn kees ñëwam ma kaa xool nee na bi muy génn bar yi jëm si tëngee bi mu ubbee enveloppe bi dafa jummi dafa tiit ndax li ci sëñ Babacar sa ronkos nee na bi muy toll nag croisement mbaaw na ci la ko xaal bi song mu commencé taalif mu ngi ànd ak alxaaji maxtar baabu mu di ko dig te muy bind حمدا لرب كريم خصنا كلبي كي اي بنيلم كتح ما يجب دي فانت شعر اكد بجل على خير البرية من مولاه خيره فاختار نكر الله وآله الغر أسد الدين قاطبة زوي التقى والنقى والفخر أهل بلد غير تقى قاب أنا قصيدة ممكن تعلم ngir tagg kook xamle ay xar baaxam ak la ca mbay minal fadaili ngir ngeen mooy ci moom bu dëgër kon nag ne leen xeramte nañu tiit yéen ñëpp déglu ma tuut bihi uallimukum ma huwa ahsanu dur ba leen di gam-gam le mbër waa daa suux ak i ngox te xam na siiw bu dee fatti lu di gar si um nga lamba ji hazam ku nekk sempi na sampam dellu góor nit ba ca biir nag xasee mu ne yaa cheikhana ku dul yow maa in lanaa garadun bi maa la day nga jël yow rek a yaay gën a fa xasee da bu yéen mu ñibbi si dèjà lu muy toll yaraax la xasee da jeex mu daal di ñëw Dakar lijjanti soxla yooyu ba dimanche ba dellu si nag mu teel lu tiwaawan nag jàngal Serigne Babacar Sy xasida Serigne Babacar Sy toog ci salle bi ci canapé bi toogaayam bu yaru boobu Alxaaji Abdul Aziz di jàng pot benn pëy di jàng pot benn pëy di jàng pot benn pëy ba xasida koy jeex keroog day la Serigne Babacar Sy wax ne Alxaaji Abdul Aziz Dabba sama rakk ji day def na ci man xasida boo xam ne su ma fekkul woon ak ak mat dinaa bàkku ci diwaan bu ñëpp gis ne anam bay ñu daal di ko wóolu di mu ñëw ndeysaan mu nga fekk mu jënd benn bouteille yu gazelle boo ko boisson gazelle moom di naan ca boutique bi ñu woon kayu baa bu ñëw keroon lañ ko jox xasida mu di ko way ci kanamu sëñ baa bu xasida ah mu nga di koy way yu dal waaw yu dal ko si ndeysaan na sëmma rek topp waaw waaw du leen joxe si Babacar waaw way ko jox ñëw bu ñëw fii fekk Oustaz waaw maa joxe loolu Oustaz yow dix mille nga war a joxe yow dix mille nga war a joxe bon ko alhaji mbay doon na jàng kono ndeysaan di ko woy ci kanamu sëriñ Babacar Si waaye sëriñ Babacar Si ne billahi alladi la ilaha illa hu alhaji abdul aziz sama rakk ji def na ci xasida def na ci man ne billahi su ma fekkul woon ak ak mat dinaa bàkku ci diwaan bu ñëpp gis adam C'est une sëriñ babacar si moomu Mon moo gane adduna pour les ca gàddaay 1305 En 1305 ci gàddaay la gane adduna mu tolloog 1885 ci juddu Seydina Aïssa. est ce que dégg ngeen ok

اثنان أربعون إن رمت العدد بنمرة الدار وإن رمت المدد إن لم تكن تعرفها فاسمي يدلك الصراط حقا غلمي آه، بأنك كبوني يغير أنت نفسي باب اللوبة لدك كيوا وانا دك أندر لدك آه، تمو أمكر ندار تبري أندر لمو آه. mané wa innani ni qad kuntu min ahli ndari man nak do mu ndar ndar la wa maskani biha sama keur ca ndar la daa rue Andri mu ngi ca keur mu ngi ca rue André Lebon ñu melni dañ ko ne rue numéro keur ga mu na istani arbaona man numéro 42 moy sama numéro keur il lam takun ta'rifuha nee boko xamul sax fa ismi sama tour rek yedul lu ko sirata xaqan réew mi man sama tur rek kër sëñ Babou Baraka yëpp bay jërëjëf ah waaw baax na incha allah bay waaw jërëjëf baax na bay jërëjëf bay incha allah. il lam kër Si laa jëm rek neen sama rek mën na laa indi kon dëggal na nekkam bu mu nekk doomu parce que fala ndeyam dëkk fala sosoo xa euh, fekk fa baax bokk ci citoyen authentique yu ndaw tabaarakallah cheikhul xajji malik si radiallahu taala anhu di woy juróom waaye taawloon ak seydi ahmad si magam seydi ahmad si am na bés Seydi Hadji Malick ku teel am fàq la moom Seydi Ahmed Si daawu Seydi Hadji Malick magu Sëriñ Baabu ku teel am la Seydi Hadji Malick da ko doon Seydi Hadji Malick xam na Si radiyallaahu taala mooy nekk premier xalifa waaye mu doon dalal xelu Seydi Ahmed Si nag naka ah, xam naa bés bu yàlla dogalee ma jóge fi yàlla mu naka am daal di ne nii loxo daal di ne nii loxo baaraamam si si bopp sëñ Babacar naka borom borom borom njëñ sa xalifa mooy nekk sa xalifa xam nga ne man du ma nekk sa xalifa sëñ Babacar Si naka yeesul sëñ Babacar Si naka yeesul Seydi Aji Maalik ne ah bu ma ko Babacar waxoon ne ma yeesul fekk na moom Sidi Ahmad Si xam na ne xilaafa sëñ Babacar du ko fi teg bi ñu kidnappé ay talibe yu Seydi Aji Maalik boole leen ci ñu ramassé woon ca mbedd ndar yee yób pour yóbbu leen par force guerre ba Seydi Hadji Malick bu mu déggee daf ne tënk dina sax kawar mbaa ñun ñëpp ñu dellu si biir sama kanam waaw mu jaral kanam jóg ànd ak i mag dem fay leen kidnappé ay Thiès ñu ne ko léegi kon dañ leen di buddi bul waaw bu fekkee ni ñi ñi jàpp ñëpp dañ leen di buddi bul ku ci bokk ci yow nga génn mën a ay ka bismillah ñu bind seen tur ñoom ñëpp ak ñeneen ñi nga xam ne duñu taalibay Maodo dugal ci benn mbuus waaw mun ñu daal di jël kenn bu dugalee bu génnee rek muy taalibe Seydi Hadji mu teg fële ku mu dugal ku ñu waaj a dugalee bu génnee muy taalibe ba ñi mu amoon ñëpp ci ñoom ci ñoom jéer ñuy jàppoon ñëpp jéer mu jiital kon la ma waxoon ne ñoom ñëpp dañu dellu si fii wala téex saka wan doomi jàmbur lañu ñu jox ma leen pour ma jàngal sañu ma leen a ay doomi jàmbur lañu dañu ma leen a jox pour ma jàngal leen waaye kii nag di Amadou maa ko jur jël leen ko ngeen yi Modeste Saloni ndeysaan Modeste Saloni waaw Sëriñ Babacar Si ne ba yàgg na Seydi Hadji Malick toxol soxna Roxay Njaay Ali Boy Michel Sambanaar Louga kër gu fa Sëriñ Babacar Si amoon waaw fala nekk ba mu nga fa tey fa tëdd waaw bi mu toogee nag ba sëriñ Babacar Sy si ndigalu Seydi Hadji Malick mu ñëw Tiwaawan fekk Cheikh ak Hadji Malick a ko woolu mu ne ko dafa mel ni dang maa war a sore sëriñ Babacar Sy a moo taxoon sëriñ Seydi ko dafa mel ni dang maa war a sore mu ne ko ndax ma dem ndax mu ne ko ndar nag say bokk fa ne te liggéey fu ay bokkam nekk yomb mu ne ko ndax ma dem ko magum yàlla nga fa tëdd muy maam Malick Sall te bëgguma seeni leer fénkoo ngeen di def mu ne kon ma dem Thiès mu ko Thiès dafa jige ba mu kon ma dem Dakar mu ko Dakar leer ga dafa kawee ni waaw te noppeeguma fa sama liggéey noppeegu fa ngi bëgg dem Dakar zikkar ko wàcc leer gi ba leeral Dakar bi mu ko kon ma dem je ne ko waaw kay tëngéej baax na. Ah ma ne ko waaw kay tëngéej baax na tax Serigne Babacar Sy nekkoon ci kër Cheikh Seydou Hadj que ci këri suuf boo jumaay këri que ci bi kër Seydou Hadj foofu la Serigne du changé toogaay di zikkar li ko Cheikh ak hadji Mari jox bañu salat fajar mu julli fajar ànd ak mbolo mi julli suba ànd ak ñoom aussi te 1113e nuit nuyu ba nag la ñu ko ubbil bunti asamaan ne ko haza ataauna fa amnun aw am bi xëyri hisab waaw te lañ ko ñaagal nag ci may baatin yi jox ko ko nag moo tax mu daan wax ne billahi laa ilaha illa huwa ku ma seet seet jox la billahi di waaye ku ma seet seet xañ la billahi di mhm. waaw ah liggéeyam nag mu accès ko ci daaira gis nga daaira du lu simple cinq lettres alphabétiques lañ koy bind ci arab daayiratu deel mooy yow mi bokk daayira daayira ba na nga gën a jànge sa diine ak sa tariqa mooy deel bi moo représenté ak diine alif bi ngay mooy al ilmu daayira day nekk daara asatisa ya fa nekk nañu nangoo jàngale ñu jàngal ñu ñu raw tey waxtaan bi daaira mbolo la ku ñew adéré tay nañu ko japp ni ko fekk won ba ñuy sostay la ah, moy al ulfatu minante duggante moo touri tuuri daaira yi ñu toog par kër quartier par quartier su ko defé mbokk pas-pas bu ne di nga xam sa mbokk pas-pas fa ñu dëkk sa yo déggee ci ñom tawat wala yu mel non nga mëna a dem ziyaare leen masawu len ñaan so déggee ci ñom tawu jàmb nga mëna dem ba tënanteeg ñom dimbalante nii su ko defee raage nag ci baatu daayira may rahmatullah yërmande yàlla tudd fu ñu war a dem ak lu ñu war a def dañuy oote rey ñoo waxtaane ko bu ko nit waaye ba bañ ne la doo wax ku ñaan parole luñ la bàyyi wax soo waxee ba yeggal keneen wax ba yeggal ñu dajale wax yi seet li mën a jariñ mbooloo mi ci li taxoon ñu day ñu tànnal loola loola mooy tax boobu mooy ak tawaafux déggoo nañu ci nangam d'accord nañ ci nangam ne lii ak lii la ñuy def waxtu sangam la ñuy def barab sangam ànd yooyu mooy bàttu daayira sëñ Babacar si nag liggéeyam mu ak sekkoon ak ci daayira daayiratul kiraam li jëkk jóg fii ci ñu ah ba ci ñoom alaaji gànn mi tey ñoom ah ñoom ñëpp nekk ci dairatul kiram ndeysaan ñoom Alaaji Malick Ndoy ak ñu leen jiitu woon muy ndeyu daayira yi daayira bu ñu ñëw rek ñaan ko turu daayira mu jox leen turu daayira bootal leen ci dairatul kiram waaw mhm. ba 1930 ci la ko nag dairatul kiram ak dawa ini nyam nak besu ziar umayle digal ki ziar general pe def 1930 fek na 1954 mbokam yen nek ndar bi ñax bu bit ka gis ak bokk bu mbokk ñom mustafa len gamu ndar 1954 train spécial bi jogi fi mag ñi ñoom alaaji abdu kooñi ah ñoom alaaji malik ndooy ñoom alaaji gànna mii booba mu ngi bokk ci jeunes ak ñoom alaaji sere ndeysaan daan organiser dawa iri fii ñëpp di wàcc si gaaru Dakar jël seen biir ah dugg ci train bi halte bu mu yegg fekk tey mbokki passeport mu taxaw yëpp leen bu daan ñëw tëngéej maa ngi fàttaliku su tëngéej bu gàmmu ndax daan jub si booba temps naari bayru yi nekkoon biir Tëngéej dañu bari woon fu ay boutique di jaay ay valise yooyu da gis mag ñi dañuy dem xottee xottee xotti yër dégg nga jënd valise ñawlu passé riime seen valise yi bu jotee ñu daal di dem gaar bu jël seen toog di xaar train spécial wallahi ah bu demee bar ñu taxaw alaji abbas ci ba génn ñoom ah mu jaar Sébikotane wàcc ji Thiès fekk wàcce si yëpp regrou ak banlieue regrou regroupé dëkk yi Dakar ñëpp yéeg mu dem Tiwaawan ba demee Tiwaawan fekk Serigne Babacar Sy yëpp ne saxaara ngi toll lam-lam ndeysaan Serigne Babacar Sy daan ànd ak mag ñu tedd ñooñu wër ko ñoom Serigne Moussa Niang ñoom Serigne Alioune Guèye ñëw gaar ba ndeysaan mu ñëw toog ñu tegal ko chaise mu toog xaar ba train bi ñëw mu tàmbalee ca wagon bu njëkk saafaxante ñoom ñaanalante ñoom ba ca wagon bu njëkk ndeysaan mu daan wax ne yóbbu leen nu nu desoo leen hmm. yóbbu leen nu nu ñaari fan dañuy gàmmu samedi bu ñu xëyee dimanche ku fa am looy jënd mbaa nga am mbokk may seeti nga dem seeti ko ziyaara ko ñëw bu ñu jullee tisbaar ba noppi rek ñëpp yor seen wali jubal gaar waaw jubal jubal tànt ba suñu gàmmoo ba timis boobu Alaaji Siise piir moo ko daan gàmm waaw Alaaji Amar Siise bu ko defee bu ñu bu ñu ba timis rek bu ñu jullee rek ñëpp ci dimanche yi la ñenn ñi dañ daan nelaw ba seen dëkk la finalement bu ñu demee ba yëf yi xaw a kenn si def ko nag samedi mhm. bu ñu xëyee rek daal di jubal noonu nag ñoo ñëw tëngëj danañ fekk ñun la ñuy ànd ba ci bii passé nii ñu ko defee waaw noonu lañu koy defee waaye muy nitu yàlla suñu baba di xalifa yonent خليفة الشيخ سيد أحمد التجاني يا خليفة الشيخ محمد الغالي يا خليفة الشيخ سيد الحاج عمر الفوتي تعال يا خليفة مام الفاهمة يا روبيلك ويا خليفة السيد الحاج في العلم والأسرار والعرفان مطح رقم جاء الحاج حبيب دفت def قصيده bu yéeme boobu nga xam ne guddul lool waaye garaadam yëpp ci wàllu nit yàlla xilaaf tuddal na ko yow xalifatun ne ahmaday wa malikin fi l ilmi wal asraari wal irfaani nil na tazalzula baadahu wa taxayiran ah wa shafaytana fi lxaqi ya samadan waaw alxaji mansour jàpp fële ah alaaji Tijaan ñan moom it jàpp mbali xasaa i dina daje tabarkalla ah waykat yi di jàng rek waaw booba samedi bari na ñoo xam ne du ñu fanaan samedi seen dëkk joowoon la ñuy ñu xëyee dimanche pare ñu yendu ba ngoon nit ñi di déglu seen

شروق والعين غير زخام الرسول خليفة زمرات العالم في البدن غير الدنيا Eu kodugbara mega jarum bi ba basi bi ba wadi bi kabili bi ba mo na wa bi ba da so ko

xasida bu rëy boobu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh ka def ci moom ñu xasida bu yéeme nag Hadj Abdoul nee na ci xasida bi bi may tali xasida bi ci laa xamee ne wilaya am na waaw nee na ci laa xamee ne wilaya am na ñu ne ko lu baax mu ne damaa gis buy bu tàmbali rek balaa daanu beneen ñëw ci sama kat waaw bayit bu ma tàmbalee rek balaa daanu rek beneen ñëw sama xel diggante croisement mbaaw ba tollu yaram ci la xasida bi jeex loolu loolu nee bi may ci laa xamee ne am na te bala nga xam sa ñëw ba ngay bind ci wàllu yi ñu ngi koy di nga yëg ne li ngay bind dañ la koy jox mhm. dañ la koy jox moo tax muy yombe noonu mhm. dañ la koy jox day bind ci ñoom te li ngay wax di dëgg ñoom ñoo lay jàppal waaye bu ñu tëjee seen bunta doo am foo jaar loolu mat a bàyyi xel la ndeysaan mat a bàyyi xel la waaw ndeysaan Cheikhul Hadji Malick dafa benn shérif bu ko mas a fekk ndar fekk mu doon waaj pour ñëw nag ci waawa sëriñ Babacar si nag di leen gunge ba raw ba gaaru raw bi train bi taxawee nag sëriñ Babacar si ñëw di tàggatoo ak ñoom pour bàyyi Cheikh El Hadji Malick pour bàyyi Cheikh El Hadji Malick continuer ak Chérif bi Chérif bi dafa xool Serigne Babacar Sy rek ne ko ibnu man hazal fata nguur si doomu kan la Seydi Hadji Malick ne ko sama su ngóor mag ñi daan bañ a njaboot noonu la ñuy waxee waaw noo ko sama su ngóor naar bi jàkkaarloog Serigne Babacar ne ayab na alxaaj ما لك من مثال لقد حزت الحميد من الحصاد يا دوم شيخ الحاج مالك بلي كمل لي يوم في جمال بي أمل سي بابا سينا فترة من كم بولم تكوي يلا غرم يب يلا رانك رانك سينا في شيء رانك سينا في شيء تنا رجلك الجراء وعن قريب آمين dégg mu ne ko mboolem ñu baax ñëpp bu ñu sañoon tey ngay seen doom te des tuuti mag ñëpp dinañ dellu gannaaw jiital la ci seen kanam des na tuuti mag ñëpp sa mawta ala jaxaajaxatil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 kii doomu kan la Seydi Hadji Malick dafa samas ngóor eh, samas ngóor loolu mag ñi noonu lañ daan waxe pour bañ gémmiñ topp ndaw waaw ba moo tax nga dégg alxaji mbay dond radiallahu anhu wa ardaahu anna bi yàlla ko yàlla fay liggéeyam ci xatal si daji maay xaare ko aljanna yi firdaws dëkkal ko jëwetu sëriñ ba si si maay te dégg ca wayam ba mu way ci wolof gis nga tey ku mar banaan ni fa mbay dootu be ci waawoon ba ñu ziyaare ziyaaru tëggeej ak banlieue 1968 68 Erol Mbaye doon na taalif way woowu foofu la ko njëkk a way tey non bañ mu doo jiita xalifa bay si sabu seere jiita fastaano xajnaada way bi bi maanaa أيوة الخليفة بيتيس وزارة وطعن وغيطاس أيوة البيت التيتي بعد الأرض daan ko jure ñaan yàlla guddal fanam aar ko sàmm ko ba muy yëkk incha taala di ko dalal nit ci barab bi jataay bii nga xam ne moom la ñuy tudde tabarakallahu maamam mu sedd ma cheikh waaw mu mel ni mbakku naar boobu yamul foofu waaye mu defaat yeneen abiyaat na salilu shay nuuru abihi fiihi wa nuuru abi abihi wa murshidi ka xaali cheikhi wal jadawi wa xaali wan yow doomu cheikh alxaj malik gis naa sa leeru bàyyi تيو اي بسنا سالاري مامي تيو بسنا ليرو شيخ الحاج عمر الفوتي بتاعي تيو كان خامني تيميت مودون نو سكري با جيلو سي سيدي شيخ احمد التجاني بسنا ليرم تيو لأن يتنى ترب باب المكارم وهو طفل يبقى قليل ما تتابع من سنة سنة بابا كرسي دفع دفع كبيرة يا رب ما بيجيب نكمة دفع كبيرة يا رب ما بيجيب نكمة مرس في جو ما بيجيب نكمة دعني te nee na ba yooyu di daje ci moom qualité yooyu bi muy daje ci moom booba at yu néew a néew a néew la waaye taraqa lil ula wal majdi xatta gada ka abihi aw ka abi abi yàlla ay maratibam na ba mu egg ca martabay maam yaag bàyyi ya kooku bu ko ndono li jiituwul woon du teel am loolu moo tax mu daan wax ci Tiwaawan man Babacar Sy day añ laa bëccëg laa sopp xamoo ne ku muy sa kilifa ku ko def kilifa amatoo droit nu nu la neex comporté wu ku la xam mbaa mu yendoog yow mbaa mu xëyog yow mbaa mu gontoog yow yar la war a jëkk ni meeko yow war na jëkk ni meeko ginnaaw yar nangoo jaamu yàlla war na nemmeeku ci yow jub ak jubal waaw moo tax taalibe sëriñ Babacar Si la waaye nu la neex mel nu la neex waxe ku la neex jàng mi ku la neex kii doo doo doo nekk koo waaja mhm. moo tax Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu ca ab yaat yu mujj yi mu yokk ci xalifata cheikh yi moom muy wax naan xalifa yaay suñu sëriñ sëriñ si yaa di seen sëriñ farindu te nga këriñ yow say kulo xalifa yaay suñu sëriñ sëriñ si yaa di seen sëriñ farindu te nga këriñ yow say kulo far leen ci may ku ci far nuur si kenn du laaree xalifa day daan kenn du ko daal ni rek moom ma ko far ay far leen ci bay ku ci far nuur si kenn du laaree kenn du laaree xalifa day daan kenn ma far tagga nga bakkan yi nooyal xol yi muhtasiban lillahi mujtahidan sa boole woo ci dangar te yow sax sa وما أعطانا أبي المختار يا إتوقي والله وما كنا بين نار دوبود دو خسك سرد بابا كمي دوبود دو خصبه دنيا وكل يخلو فمن أتاك وفق لبنيا وكدفر تكن يبقرينا يا كل مكتسبا فكان وين بقي أنفسكما تكن يبقرينا يا كل مكتسبا لله ميتيلا

aljana maay ki ko yor laabal ma xaalu ko moom waaw mooy topp leen te dëggal dégg na yàlla du neen a yàqu yàqu ko wor ku di jiriñ ngirum miskin mu ñëw nga dalal ko xaaji ñëw nga bañal aajoom te doo fayu kor billahi Khalifa dama di ko xaste doo ñaw gala di xuloo alma ataka nga fat wala lu ñaaw nga defar boole moo tëj wax maay cheikh ashrio di xaraam na tekk dal dëddu lépp ngir tiit lu yàq sa ngor wa xayrukum daina moom la dina jëfal te xam ne law laa ka wi kon ñëpp nekk di jur keroog ba bay bay su xiif ki rasul ak Maodo si ñëpp noo sa di jooy ngir di betelu anderam muy fekk ñu jàngi ci boot boobu son pap ngi liggéey Dakar ñoom ñoo doon tawat guddi boobu guddi boobu guddi lañ ko daan ak dimanche mu wàcc si digg bëccëg bi maa ngi gis kanam gi ñëpp fekk bi ñu wàccee école jaar daara ñi ñuy jànge ñu fekk suñu sëriñ taw bi doon ñu laaj ko sëriñ yi moo xew Si moo aj du ma ba mu sëriñ Babacar Si moo aj day sant jooy jooy métti ñu ñëw kër ga tuuti rek sama papa bu jógee da daan ñu ko daan gis dimanche ba dimanche wala guddi waaw ma ne papa lu tax mën a ma sëñ Babacar Sy moo génn jamono ndax ndeysaan sumeeku solu ndeysaan ñëpp jënd gaar bi fees jàll tali bi fees laa ilaha mu bés bés bu bés bu dara keroog ba bay bay su xëy fekk rasul ak Maodo si ah ñun ñëpp noo si ngeen di jooy ngeen di mettal ak demam billaay su yéem na ku baax. góor gi ci ran sooroor yi jukkum yi góor yëpp la neex mboole nii nawe ku baax. fekkoon na mbay yeggi mu kaam. mboole nu ñuy nawe ku baax fekkoon na mbay yeggi mu kaam. mboole nu ñuy nawe ku baax fekkoon na mbay yeggi mu kaam. awee ku baax fekkoon na mbay denc fukkaam mboolem yi ñuy nawee ku baax fekkoon na mbay jéggi fukkaam mboolem du ñuy nawee ku baax fekkoon na mbay jéggi fukkaam ولا بنين ما فكر نبي ربي سلم على النبي ويسل ربي صل على النبي احمد ويسل ربي صل على النبي احمد ويسل ربي صل على النبي صل ربي صل على النبي

نمك العباب كربيلون سي ربي صلوا على النبي ويصلي ربي صلوا على النبي آمين قالفايك كوي دم بنكو بصو أيكو كخوص لك ولا موليكو تدلو

فيصل ربي صلوا على النبي أحمد woykat yi di ko woy nii waaye bi ñu ci jógee Alaaji Bachir Thioune nee na dama tëdd ba yàgg rek xaal bi son boobu mook Cheikh Tidiane Thioune ñooy benn néeg bokk benn lal ay célibataire ñoom ñoo jiitu Alaaji Mbay doon na ci waawoon dana ci kanamu sëñ Babacar day saa nee na fi ma tëdd rek bi sëñ Babacar jógee ñoom nekk ci fan yooyu rek ma jékki daga tuldon mi daidan ya wata waso hawai da kaso kariya ya gabe annibi ne يا يا بيت جموم لو جابت واو كلو علمه النخيل ويصل ربي صلوا على النبي آمين إلي الله فالفيام الكوفي أنا كلبا موضوبا كمعكي لولو بي صل ربي صلوا على النبي أَيْمَنُ قال يدعك الجبال الكتاول أولين أقول لك يا الله ما يبرسوا فليقول بالله بقالة يتمنبر لربي صلوا على النبي شيخ الخليل رسول الله أيوة في بعدك تفمر دوك فاتي أيوة فصل لك ومتع يا الله بيدون فاتي أمور سمتع يا الله

குலம் நெய்தியர்வான் சிறுச்சாயல்லைய பகசேரை சல்லிராப்பி Allah Allah ko seede wala nag ñu ma yor ñëpp ko seede sëriñ Babacar Sy dafa am teg ci yàlla ñëpp ko seede moo tax ñu ne Cheikh Tidiane Sy Maktoum mu ne góor gi basiratun bi xadaayaha munazzamatun góor gi toog yor shariatun bi zawaaya bu riwaayaati toog yor xaqiqatun bi tawaayaha muxalladatun yor tariqatun bil mazaaya بد راياتي ولدما للخليفة مثل في تصرفه وفي تزربه سر الولايات لبيان Bye bye, of our amateur to I line up for Cosette. You mean I don't think you never day like the light of non of the mess. By Sally Rapi, Solo Island, be I. You mean I don't think you never day.

بسوته بلس خلف ربعي أرتيني بسوته سنن من من عائشة لفاته بالله سنن من بيسين من أستو لفاته فيسأل لربي صلوا على النبي آمين جيدين جرني جيد تبوب المجخر بابا ربكو سبدون جيتي رسول الله waaw toog bi nu seetal sunu jëfalante ak njaboot gi mu bàyyee lan wayloo teg mooy ci ñoom bañ a bàyyi ay bañ a fekk ci waxoon noonu kalu jiitoo maxdom saafal bi di du fi jóg fii ay way su fi ñaan doon saaxal bay bay doo fi jóg tey fi soppee jëflante na yow ci baa ay way tayaroo naa 'Cause I'm a lady, Rambo, Rambo, Rambo, Rambo, yàlla bu digal ah di ko daan suuru may na leen loolu waa. fay salli waa fi sallu ala nabi ay mi dafa am diine am mbaw am sutura kan. awa yi awa maa ndogu bu ndogu taabe tëjuute. dafa am diine am mbaw am sutura kan. awa yi awa maa ndogu bu ndogu sunna tëjuute. tey yëpp ngay siyaare rek nga boole. waaye incha allah sëñ Babacar si fan yii de moom sa doxal waxoon na. ñoom it kenn dootul jàmm yaa ma tëddee yaa ma tëddee. mbusam yëppal. xalifa yi di ko fay ci réew mi. ndax na ba muy waayam fu mu dem du yàlla waan reer. day rey bay pont bi dem te di waayam. gaa yi mbay yaa ngi rey taxaw di la teeru foofa dal. doo xiif doo mar. doo tumurante te soo gëmmeen toog ñu jox la diwaan réew فاندينا الله أم سدرة أوي أوما ربه جرتا بدودي تبقل الله يبقل قوة الله مسموك ما ينفنندي أما فيصل ربي صلوا على النبي أحمد فنودا بيد الكنين عليك أسمعك أنت بكي يا قلمي seeti na ko yàlla defal ma amit ak ñam fekk أمين سترا للمؤمن أمن مكين كيون وصرا أجدبا سأيمنا بردوك فاتح العبد صلى فيصل ربي صلوا على النبي فيصل ربي الجل الذي ينادى ويسيرا من جملة الجان الخير من سويا كي يمر والله لا صدى النار ما يعي ليلة البرار أو خليفة كان يلعب سبا مصر سرية خير الغير صب النار من عياي الحمد لله معي مكي سبب كد بالخير تبن مس ممكن من جتاي يتخلف عليك réew cosaan gi ma xiir ci way sël bu tedd bu xellu mooma may tëral yu wër mbaaleel fay ko saw ko xellu may siiw na ba baan ku ñëw fi moom te torox moom solal ne ay ndigal ba yafadaay la soxlu mooy géej wi ngi saara lu sama dem lay warak loo sey mën jaala la rango ba tax na ñëpp salen baxru yi ñu gis na ba gàllaw du sama yë te su ko jégaloo xilaafu dahab bim feeñee leeral na xëy ñu salam cosaani wax ji ma déggoon xanaa lu muslima jallool liru jant njolloor bu fekk teeŋeeram daal yu waal penc ma këri daramaan mbay pend mi salloo yaa fi xëy dan kay teewulu te doylu ñu bay saal yoo ka dellu noora way doon na paas dama raboot أم الكتاب ليقبلوا ومكي من قربان وعبيد إسلام مدام مدينة دم بيت لاي يا خبر الرسول فك فميان يقل الشيخ يدم مقدلق يرجو وجوان وجبو يا يفافا في جبال الهدي

sen xol yi ànd na moom te xol yi réew mi ci Dakar ku jënd ar bàyyi xalifa gënoon du lislaam Maodo tàggat na ndaw ñi ci lislaam xol yi ànd na moom te xol yi ci Dakar ak bëj-àndar bayek aliram kalmam nuslo kalmudining elangram domas siruhi akelo sodan wer manayay leyatul badar dolew si ay suñu njiit dinu xam loo dinu digal dinu def loo yu baax si ay sunu yaakaar doy nanu ñëw nanu yees nu yeesal gawi gawi dooleel ponkam yi ñoom ñu dellu gannaaw soo duy deñ yaa fi gën sagan dana teerlu day fa melaw teraanga yu ma kenn du ko gis yaay ñu sos dafa dundal li mu nekkoon sëtu si baaw na du dellu dafa ngëwee du darango darango sukur na saasalo saasalo du jëkki ma ñuul loxo bay bay jamaal du dëkki ba ñuul doomi gaynde fàttala baaxoo jamaal du dëkki ba ñuul doomi gaynde fàttala baaxoo jamaal loxo ca kaw du dëkki ba ñuul doomi gaynde fàttala baaxoo jamaal ku njëkk ba ñuul doomu gaynde faal loxo bay bay jama ku njëkk ba ñuul doomi gaynde fatala baaxoo jama ku njëkk ba ñuul doomi gaynde fatala baaxoo man fekk ni moo ngay feeñ ci yow si datu teggini Maodo yi feeñ ci yow si bettunu ndax yow la ñu sol manto bi yaa ngi ni wéyee wéyee ginnaaw ñëri jëf si xalifa rek baay seen bopp gaaw nañu farlu Fekina pare wo ngalan bigi nagi bako Ujam tiyu bugalate Samga jiti torotelu Alfa tajina mandefina Nekembangla Kembangla Tajina mandefina Nekembangla Kembangla Jitala burla huyangla ñëpp bokk sutur la amiin bur laahu yàlla bu del fan yi ñëpp bokk sutur la bur laahu yàlla bu del fan yi ñëpp bokk sutur la sallim yàlla ne ala Muhammad teewloo alihi sahbihum ajmaina am nañu fadl la xool doon xool keneen ku la teg lambal enen waaw ɗumane yayarde abaka rasu hoɗo to koli kene gona to nambilene ɗofailo ale kene yayordine kene waaw hoɗo kolilene gona to labalane waaw ɗofailo ale kene yay abáàrọ̀lọ́sì rọ̀bọ̀ olóògùn kọ́lé kéré kọ́lá tó ọ̀làmílẹ̀ rọ̀bọ̀ ìbọ̀ alẹ́ kẹrẹ yàrá òkú kékeré. ọ̀bọ̀sẹ̀ وخيلت بابتي ونادي عمقي وخيلت بابتي بخيس القلبي العجالي شقينا شريف خيس سنعي عجم قلي فالمولوم تنبي سيرني أباك تسوق لخوض خلقنا كل دون من

سبحانك يا ربي وجهك من عند الجبال يا ربي وجهك من يقول القصص يعود يا من يقول القصص يعود يا من يقول القصص يعود يا من يقول القصص يعود يا ربي وجهك من يقول القصص يعود تجبين ببرم غير خصايا مجمسة يا دين جمعي خصايا مجمسة يا دين جمعي من يقول لي وبنجي وبنجي وبنجي سيدنا بيري فليقل يا فرعون لمرجع خان بيري أمام كسي وهول موت خلق البلد ولم بلد عليك يا يوتين جيوان من يقول يا فرعون لمرجع خان بيري يا فرعون

يا ربي يا ربي ay jëf waxtu doon di ko ñaaroon benn abaaka gasi loxo nootu xuri kere gona doona billa rek lama ilo ane kere yaayo diina jee waasene sayid baabaka yaayo diina jee bay ay jëf waxtu doon di ko yaayo diina jee bay rasen waram la kisi yaw raamo bay பயிர்த்தே போய் வியாஞ்சும் புலர்பனோ கடமை காலே பை சதங்காய் கயுல் சிவோ யாதீன தேவை குபின் அல்பான் தயல் மசலம் சேரோ பை வயசே பின்னது வலா யாதீன தேவை புலகால் யௌச்சியோ கரச்சோ தேவை புலகால் மயௌச்சியோ lu ko jotee may. nga yaakaar ba ñëw fi yow. lu ko jotee may. tuggiti fiyaw yaa diina jee bay la gambaaya baa dalal sofit loo deeti ragal bay ku la gambaaya baa dalal sofit loo deeti ragal mbay islaam lay dalal yaa diina jee bay islaam bee la mal tal sunu yakaay moomi xol ku la sox bu yebaa fital yaa diina jee bay ku la sox أمامك سره دخل الجنة ولا دون بلاد وغير الكلام يا ربي نجد إلهم بلا فلتر سريا كارب بخل كل الصح ويقام فتن يا ربي نجد يا وكيل من يا وكيل من يا وكيل من يا

خلف طلقات شريعة غيب حزن خلف طلقات شريعة غيب حزن سمي من تريد يا ربي نقول لهم بموي خير نقولك يا مروفة يديك يا نبي يا ربي لجيبي السلام عليكم gannaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli te salmal ci sangu sang yi moom mi nga xamante ni du woon ak ak moom jotaay bi le du am sallallahu alayhi wa sallam di yeesal sunu ziyaara tëbbu te ñaanal kibritul ahmar sanga bi tedd bi nga xamante ni képp ku fi taal moo la may xam wala mën a abal vérité bu wattu daal Cheikhuna Tijaani Cherif radiyallahu taala anhu ñu ngi nuyu mboola bi fekk ñëpp di jaarale nuyoo bi si bi tedd bi nga xamante ni mooy Serigne Abdoul Aziz Sy ibna Serigne Sidi Ahmed Sy ibna Serigne Babacar Sy ibna Serigne Hadji Malick si radiyallahu taala anhu di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci ndigalam kàddu yu gàtt yi ñu fi yëkkati yàlla na doon kàddu sant ngërëm ak ñaan bi ñuy jëmalee si xalifatul am sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla wér ak fan gudd di ñaan yàlla subhanahu wa taala sanga bu tedd boobu yan gii wàcc si loxom yàlla na diis te yàlla na ko koy yàlla tiyeel ba du sa jëg coona ba yaakaar naa li nga xamante ni booleenu waa xadara bi am nañ ko ca moom yàlla jàppandalal ko bu yëpp mat darajey turandoom darajey waajuram waaye darajey maamam ak darajey sëriñam قدره ومقدار عظيم صلاة تفتح لنا بها أبا خير ورضا وتيسير وتغلق بالعطش والشقة والمطرة وتغسل وتكون لنا بها وجهة وتغسل أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير كم أبرأت وسيفا درم سرعة والنار من نقرة الأمام من يقتصد بك يا خير الروح وأشرف الخلاق أبصر من كل من تقل ومن تكن برسولك بنصرته إن تلقه أبصر إلى ما تجمي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين